lu ak borom këram am na jafe-jafe xëy na yow mi ko jege loo ci wax moom nit ñi danañ ko mën a gëm ndax lu ci am yow xam nga ko. waaw foofu mu mbay dama ne dootuma duggati ci gaam boobu dootuma ci wax ndax sumbulu mel na ci man noo mel na ci moom noo xam ne buri bàcc li magam xam na ko njóogu xam na ko yaayam xam na ko mbokkam xam nga ko waaye li ma waxoon rek ah, ni leen nanu bàyyi jàmbur bi mu sëy dañ ko ñaanal ak borom këram. nan ko dimbali te yàlla rek tax dolli ko ñaan nan ko ñaanal yàlla lafal ko cat bàyyi ko borom këram parce que sumbulu sëykat la yaayam sëykat la ko xool ci magam buri bàcc li xam ne sumbulu sëy rek lay def nanu ko bàyyi mu sëy te yàlla rek tax Ablaye Diop xaas ak sumbulu dama leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a sokkor leen asamaan ak suuf ci barkeb Seydunaa Muhammad ay waaye ngir yàlla bàyyi leen ñi ñu sëy te yàlla tax te ñaanal leen yàlla lafal leen cat may leen jabatu barkel may jaaxal lu lu ne ci ginnaaw lan moo tax ñu ñu bëgg loolu. waa ki ki def loolu ak ki ko bëgg ka koy bind ñoom ñoom yokk ak yàlla xaw ma kumu ak ak fu nu ko jëlee lu lu fa mën a xew ñoom la ak yàlla mais Soumboulou ak Ablaye Diop Khass ñu ngi sëy seen sëy ba mu neex macha allah tubaarkàlla démb dembari déggante na ak moom te saa yu ma déggante moom rek mu ngi ci boroom këram toog léegi nit ñi nañu bàyyi nañu bàyyi di wax lu leen leerul. man lii naruma ci yoon wax mais yow danga nekk nit koo xamante ni tubaarkàlla macha allah xam nga ma xam nga sumbulu parce que rus naa wax loo xam ne xaas daf may seetaan may raay sama dox wala sumbulu bàcc di seetaan may am may kersa barke Seydunaa Muhammad ñu ngi seen seen sëy wallahi ñu ngi sey sëy seen sëy ñu ngi seen jàmm barke bi nan leen bàyyi ñu sëy seenub sëy comme man maay sumbulu sumbulooy man bu nu gisee sumbulu gis nañ ma bu ñu amee lu ñu bëgg laaj sumbulu man lañ koy laaj wala lu ñu bëgg a laaj xaas man lañ koy laaj dem nañ ba sax dañ maa boole loolu mu mat macha allah tubarkalla dama koy sant yàlla waaye nañu xam ni kon man mii rus naa wax loo xam ne dama koy wax sumbulu xool ni bàjjan mboose li mu wax amul wala Ablaye Diop xaas xool ma ni bàjjan mboose li mu wax amul wallahi ñi ngi sey seen sëy ñi ngi seen jàmm ñi ngi seen salaam tubarkalla macha allah na leen ñaanal yàlla dafa leen cat te ñaanal leen ñu sëy sëy bu barkel yàlla dafa leen jabatu barkel ci barkeb Seydina Muhammad waaw euh, même du moom dong sax euh, yow sa conseil xale yi dinañ ko soxla ñi yàq nit ñi ci internet bi dégg nañ ko ci sumbulu dinañ ko dégg ci ñeneen jot na nag euh, ñu xoolaat suñu bopp defaraat jikko yi surtout di waxante lu baax te bàyyi lu ñaaw. waaw loolu moom dafa yàgg ci àdduna ndagam ku tedd gi sallallahu alayhi wa moom la fi moom moo loolu la jaar na ci moom ba jàll Serigne Touba moom El Hadj Malick Cheikh bu Kounta maam Limaamu Laay gaa ñu baax ñun ñëpp ndagam ñoo fi jaar ci wax yooyu ñun mat sa wax waaye ak fi ñu toll ci jamono ji nga xamante ni macha allah réew mi toj na TikTok YouTube bi stat yi yëf yi waaye damay ñaan rek ak loo ci mënti waxal nit itam ak lu mën a doon rek nan ko rafetal soo xabee ci man bàjjen mboose tey lu ñaaw xam ni boo ko waxalee bàjjen mboose doomam xaru ji wala ku ko bëgg xaru wala yaayam am stress wala keneen am problème nañ ko sarax seet yàlla nëbbal ko ko parce que sutu yàlla dafa sàkk sutura ba def guddi nañuy suturaalante nañuy na nañuy jàppalante te yàlla tax nit ki boo ko xamalee lu ñaaw xam ne boo ko waxee tey wala nga teg ko tey jii ah ci réseau bi wala nga waxal ko tey ji ñaari ñett dég ko mu mu nar a mu nar a naan ndoxum li ñaan xaru ji nga seet ci yàlla bi ngir jëmmi sëriñ Bamba ak ñu baax ñi nga sutura ko te yàlla tax man de maa ngi ñaan ci yàlla képp koo xamante ni xamal nga bàjjen mboosa loo xam ne boo ko tegee ci terrain bii doomam naan poson wala bàjjan mboose di ko dund ba ba muy mitti nag ma ñan naa la ko te yàlla tax nga nëbal ma ko bu dee mi ngi ci man nga nëbal ma ko te yàlla tax bu dee leer na nit boo ko xalee bàjjan mboose yàq ko it maa ngi la koy ñaan ngir yàlla rek te yàlla tax nga suturaal ma te nëbal ma ko parce que bàjjan mboose xëy na baaxul mais am na ñett ñoo xam ne bëgg nañ ko ba boo ko waxalee lu ñaaw ñooñu gis seen bopp kon na ñuy nëbbalante nañuy suturaalante nañuy jàppalante parce que ci moment boobu la ñu toll parce que kenn xamul kañ la ak fan la ak nan la ak naka la nan ko rafetal mu rafet te yàlla kese tax. ñu rafetal ko mu rafet te yàlla kese tax mbokk yi tey ni ma leen ko waxee suñu gan bàjjen boose la ñu ngi koy nuyu sumbul ah sunu jigéen la boo gisee ñu sañ laa laaj.